asalaamaaleykum wa rahmatulah taalaa wa barakaatu mbokki euh, diaspora bi mbokki internet bi rawatina mbokki yi nga xamante ni yéen ñu seetaan via sunu TV tey ñu ngi am mbégte ak contentement tey di leen présenter seen émission bu mag boobu ñu duppeeku li nga xamante ni moo nekk diine ak xam-xam diine ak xam-xam nag tey dalal na ki nga xamante ni borom xam-xam bu mag la euh, tey kenn du ko laajte fii ci Sénégal kenn du ko laajte tamit ci bitim réew ñu gën koy xam ki nga xamante ni moo nekk Serigne Adama Cissé diwaanu Kaarang Kaarang na suñ ko waxee mu ngi nekk fi nga xamante ni moo nekk frontière Sénégal ak gàmbi moom lañ dalal tey si émission bu nga xamante ni moom lañ dëppee diine ak xam-xam moom rek laay dalal daal di ko jox sama micro di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah. bisimilah asalaamaaleykum wa rahmatullah. sëñ bi ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax di la nuyu bu baax yow ñi nga àndal di say caméra ñu ngi leen di dalal jàmm di ñaan yàlla suñu borom yàlla nañu suñu borom doole jàmm. di nuyu àdduna wërngal këpp di nuyu jàmm yàlla yi nga xam ne ñoom ñoo nekk Kaarang di nuyu mbokk Sénégal yëpp ak mbokk Ndakaaru fépp foo xam ne nii rek euh, Serigne Adama si mu ngi fay dem di jëflante ak jàmm yàlla yi fa nekk ñu ngi leen di siyaar ñoom ñëpp di leen nuyu di leen ñaanal yàlla jàmm ak sutura rawatina at mu bees mii nga xam ne moom lañ dugg kenn ku si nekk lu ci sa soxla ak sa mbébét lépp yàlla ko suñu borom yeggali yàlla may ñu si wér may ñu si kattan defal ñu si sutura ci dalal bii ngeen ma dalal pour ñu waxtaan ñu ngi si sant yàlla di si kontaan bu baax si kàttanu yàlla suñu borom di ñaan yàlla suñu borom may ñu xel ak boo xam ne dinañ mën a wax loo xam ne dina mën a jëriñ jaamu yàlla yi seen soxla ndax fu mu toll jamono dafa doy waar doy waar goo xam ne jaamu yàlla yi seen soxla bëri na trop kenn ku si nekk mi ngi xool fan lay war a mën a jaar pour dimbali ko si ay soxlaam ñu yàlla di ñaan yàlla li rafet lu baax lii ngeen def di ñaan yàlla suñu borom yàlla ko suñu borom jëmale kanam te yàlla na yàlla may ñu xel a xalaat ak xam-xam boo xam ne dina ko wax jaamu yàlla ñu mën ko jëriñ jariñu si kàttanu yàlla ñu ngi nuy ñëpp di ziar ñëpp di la wax bisimilah salaamaaleykum. bëggoon nañu xam kan mooy Serigne Adama Cissé. waaw sëriñ Adama Cissé maa ngi cosaanu dëkk bu ñuy wax Diosong sama maam Alsaan sama maam Ibra Kumba sama maam Alsaan Kumba ñoom ñoo jur sama maam yi nga xam ñoo jur samay papa ñu koy wax Birane Cissé moo jur sama papa ñu ngi cosaanoo Diosong Birane Cissé moomu ak euh, Birane Cissé euh, Arsane Kumba ak Ibra Kumba ñoo bokk nday ak baay Arsane Kumba moo jur Serigne Aliou Cissé Serigne Aliou Cissé moo jur Imam Assane Cissé ak Cheikh Cissé ak ñoom Maay Cissé ak ñoom Ousmane Cissé waa Medina yooyu noonu Sidna Cissé moo jur ku ñu wax Ibra Kumba moo jëloo euh, Birane Haram ak Mare Haram ak euh, maam Essa ak Omar ñoom boo calculé foofu nu ñu bokkee mooy ay doomu baay lañ ñu ne ko euh, waa Medina Baye ñoo bokk benn ëtt kër bi nga xam ne moom lañ ci saanoo fële ci Jooso foofu mooy suñ cosaan Serigne Adama Cissé nag ba demee amee juróom-ñaari at la fa jógee dem dëkk bu ñuy wax Kër Laayeen Soxna mu ngi si Njambaato si Serigne Daara bi ñuy wax Alaaji Njaga Silla moo njëkk a teg alawa si sama lupp jàngal ma basin mi ma koy ñaanal allah yàlla na suuf yob si koom mu nekkoon sëñ daara bu baax bu jaatu ba ma jógee foofu sëñ sëñ daara alaaji njaga si la gaañu ma jógee fa dem sañ ci alaaji sàmba ku ñuy wax sëñ daara Ablaye Cissé di mu xadamu bàyyi ñas uh, bu baax bu yaatu ginnaaw yàlla tey boo gisee tey ma samp kër ci moom la soqee ko ndax moom moo ma jàngal jàng naa fa mu yëkkati doomam may ma ko ëlbatiku jaar naa ndar jaar naa dëkk bu ñuy wax Jurbel dëkk yëpp jaar naa fa bu ma fa jógee laa dem Mbuur si sama maam Aliou mu ñàkk man a moom ndax ku paa lu ëpp lu moo ko def ci man moo ma yar def ci man euh, jikko bu rafet ndax dañ daan dem bu ñu xëyee mu war a jàng kaamil day yëkkati kaamil bi jox ma ne ma nañ dem bu ñu àggee mënu ma séddaleel loolu yëpp mu ngi bañ ma fàtte sama diine. comme li nga doon laaj ci sànq bi bañ fàtte sama diine buñ jàngee ba pare mu ne ma tijalaat tijaatal kaamil bi nga dajale ko mu tijaat kaamil bi dajale ko ñu àndaat ñib mu nekk góor gu baax ñu koy wax Aliou Cissé moom tamit waa Josong la waaye mbuur la samp kër moom tamit sama maam la sama papa mu bi ma jur moom tamit mi ngi mbuur léegi jógee na Josong mi ngi mbuur ñu ngi lii nuyu ñoom ñëpp di la ñaanal jàmm ndax tey boo gisee tey ñu mën lii ak suñu way juru jigéen ak papa ñoo tax ñu mën li tey lu tax ñu mën li tey jaamu yàlla yi di ñëw ñuy jëflante ak ñoom ñu ngi sant yàlla bu baax ndax wax dëgg yàlla jaam bu ko yàlla joxee mu lekk rek war na ko mën a sant te yàlla ñu suturaal ñu ngi suturloo bu baax di sant yàlla bu baax na si suturloo googu noonu di ko sante ñi nga xam ñoom ñoo ñu jàngal alxuraan ko sante nga xam ñoom ñoo yar di ko sante di ko sante ñi nga xam ñoom ñoo ñu jur kon ñoom ñu ngi leen sant bu baax a baax a baax ñu ngi si diwaanu Kaarang yàlla suñu borom moom moo ñu fi indi ndax Ndakaaru lañ nekkoon jógee fu ñëw Kaarang hmm, wax dëgg yàlla sant nañ yàlla baax Kaarang léegi mun naa wax ne ñu bëri xamante na xamante nañ te ñu bëri yàlla def na ñu ngi waxtaan ñu ngi gisee ñu ngi sottiwante xalaat te ñu bari maa ngi leen ñaanal ndax jox nañ ma cër trop cër bu ñu ma jox sax mérito ma ko waaye lépp sant yàlla la kon ñu ngi sant yàlla ci kàddu yu rafet yi nga xam ne moom nga ñu laaj euh, ñu ngi la delloo loolu ci tontu. di la gërëm bu baax. Serigne Adama Cissé li nga fa wax euh, am na solo te jaar-jaar bi tamit macha allah jàng nga ba ñëpp xam ne jàng nga waaye bëggoon naa xam ginnaaw ba nga jàng ba pare ndax te nga si jàngoom xam-xam. waaw njàngam xam-xam xam-xam mi comme jàngam xam mi ci xam-xam tey nga xam ne tey jii moom la ñuy jël euh, di si dimbale suñu bopp di si dimbalante jaamu yàlla yi xam-xam boobu mën nañoo wax ne mbiru yàlla rek la lu tax ma ne la ñoo wax ne mbiru yàlla la ndax euh, fu mu toll nii ba ñëpp déggee ne sëriñ Adama si tam di suñu ko dafa jaaxal ñu bëri te xam-xam li nga xam ne tey jii moom la ñuy liggéey yaakaar naa ne suñu borom moo ko indi si ñun waaye nekkul loo xam ne lu ñu jàngale si nit moo ko indi si ñun jagleel ñu ko te mbir moom lépp lu am rek jagleel suñu borom la ndax yàlla mooy xool lu ko neex rek mu def ko ci doomu Adama Ndiaye ñit ñi nag toujours dañuy réeree côté boobu yàlla mooy xool lu ko neex mu def ko ci doomu Adama Ndiaye bëri na ñoo xam ne tey ji yàlla boole na ak ñoom muy ay borom xam-xam yu mag nekk ay imam tey ji bu ma toogee ak ñoom ñu ko xamul bu ñëwee sax danaan kii lu tax muy defal kii lii wala mu koy kii lii loolu cëru yàlla la yàlla yàlla mooy cëral nit nit nit mënul cëral boppam yàlla mooy cëral nit nit bu cëralee boppam rek bu génnee ci biti neex naa xam ku ku cëral boppam ak ku yàlla cëral neex naa xam ñun dañuy wax ne ñu ngi sant yàlla ndax ñun yàllaa ñu cëral yàlla cëral bi ñu tëral noonu ñu ngi ci sant yàlla bu baax a baax a baax si côté yëpp nag muy ci lu ci àll bi muy li nga xam ne moom moo nekk ci téere bi ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax si cereel yooyu nga xam ne yàlla cëral nañu ko ci xam-xam ñu ngi ciy jëriñu ñu ngi ciy jëriñ jaam yàlla yi yenn saa yi sax ñu seq nit di waxtaan waxtaan ci xam-xam yoo xam ne dana am foo xamee lii wala foo jàngee lii fekk li yëpp mbiru suñu borom la yenn saa yi ma toog imaam wala ma toog nit ku nit ku baax ñuy débattre ci kii nii liy faj ak luy jëriñ ak luy def nii ak luy def nii mu naan ko lii ak lii boo ko defee nii lii ak lii ak boo ko defee nii day toog mu yàgg mu ree ni mu yow daal jaaxal nga ma ko loolu yëpp sant yàlla la kon sant yàlla googu guddeeg bëccëg moom la ñuy def guddeeg bëccëg moom la ñuy def ñu ngi sant yàlla bu baax a baax a baax jàng nañ alxuraan xam nañ euh, garab yi ci àll bi yi nga xam ne moom mooy jëriñ jaamu yàlla yi xam nañ ci yu bëree bëri bëri ba bëri yoo xam ne ku ko jëfandikoo jëriñu foofu laa bëggoon ñëw sax ginnaaw ba nga jàngee xam-xam boobu tey ñoo xam ne yaa ngi fii si diwaanu Kaarang toogaay bu nga toog fii ci diwaanu Kaarang da ngay jàngale wàllum diine wala da nga jàngale xam-xam wala ngay def. waaw fi ñu toll nii ñu toog ci diwaanu Kaarang dañ fee toog pour dimbalante jaamu yàlla yi nga xam ne tey jii ñoom ñooy am sikk si seen yaram ñoom ñooy am sikk si seen wàllu liggéey ñoom ñooy am sikk ci li nga xam ne moom la ñuy jëflante doomu aadama Njaay muy xam-xam boo xam ne dañuy faj si côté yëpp nag côté boo xam yàlla dimbale nañu si rek ndax lépp lu waaye def mu yegg rek ndimbalu yàlla la côté bi nga xam ne yàlla dimbale nañu si rek dinañ si jëflante ay jaamu yàlla ci côté yëpp muy si wàllu faj muy si wàllu ubbeeku muy si wàllu bayre muy si wàllu jigéen bu bugg borom kër muy si wàllu jigéen joo xam ne dafa nekk si jafe-jafe wàllu am doom muy si wàllu góor goo xam ne dafa am jafe-jafe ci wàllu sëyam ci wàllu ngóoraam loolu yëpp am na ay tegtal yoo xam ne jaamu yàlla yi buñ dégloo rek mën nañ cee jëlee njëriñ yoo xam ne ko ko def jëriñu waaw loolu moom dañ ci yëngatu bu baax a baax a baax a baax si kàttanu suñu borom d'accord xam bu nga xamante ni moom nga fi lim ban nga ñu mën a faram-fàcce loo xamante ni jëfa jëflante nga ak jaamu yàlla ak wala doomu aadama bu nga xamante ni ba mu leer na ko fañ nga ko yaa ko faj waaw ñu ngi sant yàlla bu baax ndax euh, nekk nañ fi dakaar kooku médecin la médecin bi fajaate yàlla def euh, mu nekk ak soxnaam soxnaam moo ñu boole mu amoon jafe-jafe yaakaar ne luñ ko jafe-jafe boo xam ne ci wàllum goraam la boo xam ne diir na fu nekk mu dugg fa yàlla dimbale ñu ba ñu yàlla boole xamante muy ñëw kër ga di ma fekk Nations Unies Cambérène 2 may ay garab di ko jox bu mujj gi buñ tesee sax daf xool mu yàgg mu ma léegi man maa nekk médecin bi waaye yaay sama médecin ndax mu gi ñëw na toog ñuy waxtaa mu laaj ma ne ma lan moo ma jotoon ma ne ko gannaaw yàlla dimbale na la yaa ngi jot sa bopp te li nga xam ne tey ñàkkoon nga ko yàlla dimbale na la yaa ngi ko yëg ba soxnaam kontaan ci loolu trop ba soxnaam sama wërale ba fu may waxee yow ni sama wërale la wërale bu yaatu la ñu leen seq loolu mën naa ko wax te kaaraan fii nii am naa si benn ndaw soo xam ne xañ na duñ tudd tur ndaw soo loo xam ne dafa feebaroon sama soxna si fa la ko fekk bañ koy wàccee si oto bi keroog yàlla dimbaleen ko mu sonn trop kilifa gu mag moo indiwoon si man boo xam ne ci yëngatu si wàllu njàngale ci la nekk ba mu ñëwee nekkul fii sax ba mu ñëwee mu ma ma wax ma koy wax mu am nu ma te ne baatu xaalis moo tax nga wax mu ne mën nga ko faj mu ne ko bu la neexee téye lépp ba yàlla dimbale ñu ñetti fan yi nga xam ne moom la ñëw sama kër sangu ñetteelu fan ba bu mu ñëwee moo sang sa moo moo sang boppam te doomam fii si garage bi yor oto jaru ñu tudd turam ndaw saa ngi fii ba léegi te waxoon na ma ne am na fu mu demoon foo xam ne moom ko góor ki moom ma ko wax demoon naa foo xam ne dañu may kii jaru ngay dem fee ndax du wér te wér si loxol yàlla la nekk ba mu ñëw yàlla dimbale ñu ñu jox ay garab jaarale ko suñu loxo ba yàlla fu mu toll nii tey ma nga këram toog uuf njabootam loolu sant yàlla kaarang fi bëri na ñoo xam ne ñu bëri bëri bëri ñoo xam ne ñu ngi jëflante ak ñoom ci côté bu nekk ndax euh, mën na laa joxaat beneen boo xam ne ci wàllu affaire yu ngóora la kii moo kii ma ki nga xam ne tey jii moom laa ko suqaloon sama mbokk la jege ma trop yàlla def euh, mu ñëw kër ga ànd ak sama doomu bàjjen du ma comme li ñuy wax duñ tudd du ma tudd tur. Mm. dem si dem si soxnaam ba affaire doy waar trop ñu woo ma téléphone ci guddi gi wax ma ko bañ ma ko waxee may leen ñëw leen. ba mu ñëwee ma jox ko garab yi ma koy jox ay booru deux heures du matin trois heures ba mu yi ma koy jox defal ko la ma koy defal mu sangu jox yu ma koy jox ne ko naan ko mu naan ko si yoon bi si moom moom ma waxal boppam ne ma si yoon bi laa commencé yëgee sama bopp avant may yegg keroog yaakaar naa ba demee si soxna si ba ma xëyee dem fa seetee leen soxna si xool na ma beneen bët bu bokkul ak ba ma daan xool dal na ma fii si góor goo xam ne mu ngi dëkk Ngayeen Moussa Gaye gii keroog bu ma jógee ko fi dafa dem booba une heure jot na. ma jëlee fi Jakarta mu woo ma ndax ma góor dafay bañ gàcc ci lu bëri mu woo ma jël fii Jakarta dem ba nga yéen fekk ko fa defal ko la ma ko defal moo tax côté yooyu ñu ngi si sant yàlla bu baax. Serigne Adama Cissé si wàllum alxuraan lay pajee wala si sunguf wala reen. waa dañuy jël boole ñaar yëpp ndax boo xoolee ñoom ñaar lañuy ñuy dañuy jël ci reen dañuy jël ci alxuraan ndax boo demee ci àll bi am na ci garab yoo xam ne alquran la da nga koy booleeg alquran pour mën koo jëfandikoo am na si garab yoo xam nag bu la neexee mën nga ko jël boole ko moom kese jëfandikoo ko waaye am na si garab yoo xam ne da koy jël boole ko alquran ndax alquran mooy ndeyu lépp yaakaar naa day yombal lépp lu waaye di def alquran da ko yombal bu ñu jëlee garab yi xool ci aay yi nga xam ne nii moom moo nekk si biir alquran yi méngoog yi ñu soxla ñu jël ko jën bind ko boole ko garab yi nga xam ne moom la ñu uti ci àll bi jox la wax la nañ koy defee boo ko defee yaakaar naa ne yàlla mën na laa dimbale ngir jëriñu si kàttanu yàlla suñu borom. te ñu gis ne ndaw yi dafa am négligence bu mag bu ñu am si wàllum diine tey lan ngay andil ndaw si wàllum diine. Um, li ñu indil ndaw yi ci wàllu diine dañ koy jiitalee si waajur yi nga xam ne ni tey ñoom ñoo tax ndaw yi nekk fi diine waajur yi ñoo ko war a njëkk a xamal ndaw yi pour ñu mën koo xam waaye bu fekkee ne da nga am waajur xamalu la sa diine bàyyi la xamul la lan mooy àdduna du waxtaan ak yow jàngalu la alxuraan pour nga xam sa diine du yomb dafa nekk loo xam ne lu am solo la si jaamu yàlla yi moo tax ñu wax aaya boobu ñu wax ne ina diine islam moo tax jaamu yàlla yëpp kenn ku si nekk war ngaa xam sa diine bala ngaa war a mën a jaamu yàlla ndax diine mooy tax nga am xol bu rafet jiital diine mooy tax nga am xol bu rafet jiital diine mooy tax nga am yërmande jiital diine mooy tax boo gisee sa moromu koo xam ne sa kilifa la nga teg ko place boo xam ne kilifa la te loolu noonu dafa manqué bu baax ci jamono léegi ci ndaw yi ndax ndaw boo génnee ci biti ndaw yi ñàkk nañ yar ñàkk yar goo xam ne euh, lu koy waral yëpp kilifa yi ñoom ñoo koy waral ndax diine kilifa yi ñoom ñoo war a fagaru fagarlu seen njaboot gi teg leen ci yoon jàngal leen alquranul karim bu ko defee kenn ku si nekk mën a xam si diine ndax xam si diine dafa am solo si jaamu yàlla bi ndax jaamu yàlla booy dund ci àdduna te xamoo si diine rek pour ndax doo xamee lan mooy farata ak sunna doo xamee lu baax lu bon doo xamee lan nga def pour mën a jëm ci kanam moo tax euh, jamono léegi ji way jur la ñuy ñaax pour ñu dugal seen doom ñu jàng ñu xam ñu jàngi alxuraan pour mën a xam diine pour mën a xam bu ëllëgee nan la ñuy taxawee société bi ndax loo jàng jàng jàng boo jàngul diine rek bu ëllëgee pour nga taxawee société bi du yomb te jamono toll nii dafa laaj jàng pour société bi mën a taxaw ndax boo xoolee li fi am kenn mënu la ko wax boo xoolee musiba yi am kenn mënu la ko wax boo xoolee li fi am yëpp kenn mënu la ko lu ko waral sàgganee diine moo war àdduna bi li fi dox yëpp di fi dox kon nañ fonk suñu diine ñaan yàlla mu may ñu kàttan boo xam ne dinañ ko mën a sàmmee suñu njaboot pour ñu mën a am diine bu ëllëgee bu yoomal xiyaamee yaakaar naa ne buñ jàkkaarloog suñu njaboot du sëgg waaye di nga gis waajur yoo xam ne bu yoomal xiyaamee seen doom yi ñoo leen xañ ajana lu tax fañ leen waroon tegee ci diine pour ñu mën a xam diine teguñ leen fa ndax jàngaluñ leen alxuraan ndax xamuñu ko ndax fu ñu toll boo xaalee boo xoolee diina ji léegi gars yi dañ ko négligé ci côté yëpp ci côté yëpp ndax fu ñu toll gis jaamu yàlla ne mën ngaa jël sa doom dugal ko école français fayal ko ci alal joo xam ne kenn xamul mu toll nga gis jàngalekatu alxuraan bi nga xam ne dafa nekk toog yor ay ndongaam di leen jàngal daara nga koy sikk wala ngay wax ci moom lu ñaaw loo xam ne wala nga koy defal wala ngay def ci moom loo xam ne diina nangul loolu te ñuy jàngal ndaw yi alxuraan yaakaar naa ne ñoom ñooñu lu mu yàgg-yàgg dinañ am pay suñu borom ndax yaakaar naa doomu aadama njaay bu mënta juddu balaa bu fekkee ne booy jàng français sax bëgg nga sa xel neex bala nga def dara dañ ci war a jiital diine ba pare jàng alxuraanul karim boo ko defee nga doog a xam nan ngay def ba mun a ubbeeku ci français bi nga xam ne ne tey moom ngay jàng pour yàlla mën la see dimbale moo tax xam sa diine am na solo trop moo tax émission bi macha allah li ngeen ko tuddee am na solo ñu koy wax diine ak xam-xam kon yal na émission bi jëm kanam ak lu ñu ci sàkku yàlla mën ko cee def bu ko defee li ngeen ciy sàkku yéen tamit mën a jëriñ jaamu yàlla yi ndax jaamu yàlla yi man cee xam lu ñu leen war ak li ñu war a pour bu ëllëgee ñu mën a dimbandiku ndax tey jii boo xoolee lu bëri diine moo ko lal nga xam ne ngay sangee néew diine moo ko lal nga xam ngay juutee jiitee néew diine moo ko lal nga xam tey jii bu ci julli yàqoo noo koy defaree diine moo ko lal ba ci njàpp mi nga xam ne sax moom ngay jàpp avant ngay julli njàpp moom moo gën a jafe te loolu diine moo ko laal kon pour nga xam pour nga jaamu yàlla jaamu yàlla gu wér faaw nga xam sa diine ba pare yàlla jaamu yàlla goo xam ne yàlla suñu borom dina la ko nangul ndax boo xamul si diine boo bëggee jaamu yàlla jaamu yàlla goo xam ne yàlla te xamoo li ngay jaamu lan la yàlla du la ko mën a nangul kon bala ñoo mën a def dara ne ñax waajur yi yi nga xam ne ñoom ñooy suñuy kilifa ñu dimbale njaboot gi di leen yar di leen teg ci yoon nga jur sa doom war koo jàngal jàngaloo ko nga jur sa doom bàyyi ko ci mbedd mi muy dox di taxawaalu def lu ko neex nga jur sa doom xamaloo ko dara loolu dafa bëri si jamono toll nii njaboot dañ koy téye njaboot dañ koy yar njaboot dañ koy jàngal diine bu bu ëllëgee boo fi boo wanee ginnaaw ku gis sa njaboot rek man a xam njaboot gi kat si njabootu diw la bokk loolu moo gën a am solo ci àdduna kii kat wax dëgg yàlla doomu diw la si njabootu diw la bokk moo dàq loo mënta gis waaye ah kii kay bàyyi leen ko foofu doomu diw la ak diw loolu rek yow muy wajur ba yow la njëkk xas ndax nga génn sa doom ñuy móolu sa doom wala ñuy jaarni sa doom ci mbedd mi yow wajuroo yow la njëkk xas moo tax euh, waajur yi war nañoo mën a ñaaxaat seen bopp dellewaat seen bopp ci yàlla dellewaat seen bopp seen njaboot ñu xam ne njaboot du caaxaan yàlla bu la mayee benn bant sax sante ko ko te xam ne lim la may lu rëy rëy rëy la boo gisee suñu maam Ibrahima lam ñaa njaboot moo taxoon mu ñaanoon yàlla ñaan ga yàlla ba ko mayee lam koy may delloo na ko njukkal sa la ko la lam ñaanoon yàlla yàlla may ko ko mu am lu diggante wala suñu borom delloo woon na njukkal yàlla yàlla njukkal googu noonu tey yàlla delloo yàlla delloo na njukkal yàlla yàlla delloowaat ko njukkal gi ba tey ti moo war moo waral tabaski te wala lu waral loolu yëpp diine te fu ñu doon boo xool tabaski léegi événement événement boo xam ne la si diine ji événement bu am solo la parce que julli li yëpp moom la fu ñu toll nii boo xoolee événement yi passé nii nu si julli di mel sax ñu si julli di mel sax ñu ko moom meluñ ko ci te loolu li ko waral yëpp manqué diine la nu si julli di mel ñu ko moom ñu ko xam ne ñoom ñoo ko moom meluñ ko ci ñu ko moom seen kër la ñuy toog def li ñu war a def ñi nga xam ne tey ñoom ñoo wax ne ñoom la seen papa nekk kilifa di jiitu jumaa nekk naayi mu ñoom ñooy nekk ci mbedd seen papa ñoo nekk ci jumaa yi di def bayaan ñoom ñoo nekk si mbedd mi di taal pétard ñoo nekk si mbedd mi di tànqal nit ñi ñooy nekk si mbedd mi di déranger nit ñi ñooy nekk si mbedd mi def loo xam ne diine laajut loolu kon loolu kenn ku si nekk war na ko moytu ñu jàppalante te yàlla tax bu ko defee ñu yer suñu njaboot gi te yàlla tax bu ko defee bu ëllëgee bu yomal xiyaame ñu mën a am fay ak yàlla ci njaboot gi buñ am euh, dinañ si euh, kanam njaboot gi suñ buñ bëggee dugg àjjana buñ defee lu baax te suñu njaboot yaroñ leen woon pour ñu mën a def lu baax buñ bëgg buñ bëggee dugg àjjana njaboot gi dañuy tey duñ mën a dugg kon nañ yar suñu bopp ñun mag ñi ba pare doog yar suñu njaboot booba liggéey yàlla dimbale ñu ñëpp ñu bokk tàbbi àjjana si suñu borom bi loolu moo tax jërëjëf euh, Serigne Adama si ba léegi rek euh, ñu leen di waatali ñu ngi si euh, li nga xamante mu nekk tontu ak laaj si wàllum diine Serigne Adama si ñu gis ne col li nga xamante ni xale góor ak xale jigéen ñu ngi koy def si waxtu wi ndax dëppoo na ak diine lan la si euh, euh, diine lislaam wax. waa solin yi yu xale jigéen yi ak xale góor yi di solo léegi loolu alxuraan da ko wàcce woon bu yàgg yàgg yàgg yàgg ndax danañ wax ne nit dina am wëli yére teg ci rafle dina am waxin na yére ci gàttal teg ci rafle lu wara loolu di nga ci gis koo xam ne li muy am ci yére bu la ko waxoon doo ko gëm te amul benn yére boo xam ne mun na ko sol dem si yenn jotaay yi amul benn yére bu ci si mën a sol dem si yenn jotaay yi lu ko waral mooy yére yoo xam ne tegginuwut comme du xale yi góor yi tubéy yu xat yu sol léegi jigéen sa dafa moomu tubéy ba sol tubéy jigéen waddu lañ ko xamee woon ak sol yére yu jot yoo xam ne góor du ko gis ba xelam dem ci moom waaye jamono léegi ji dañuy wax ne affaire violation violation waaye boo xoolee jigéen ñi ñooy léegi ndax da ngay gis jigéen bu génn këram bay bàyyi ay woy juróom sol yëre yoo xam ne bu génnee ci mbedd mi yaakaar naa ne li ko dalee si kar boppam ba si weewu tànkam cireem yëpp ngay gis te loolu warul jigéen jigéen yaramam yëpp lu ko dalee ci ci karaw boppam ba ci cat weem yëpp awra la te xawra dañ koy sang xawra dañ koy sàng xawra dañ ko bàyyi si biti boo gisee tamit jamono toll ni feebar yu leen dal feebar yu dal góor ñi ak feebar yu dal jigéen yëpp ñu ñoo ko indi suñu bopp ndax yaa ngi génn ci mbedd mi di dox solo yére yoo xam ne jotut te mbedd mi moomoo ko yow kenn yaa ngi fiy dox ak ñoo xam ne gisoo leen xamoo leen ñu ngi taseeg yow sa jumbax mu ngi feeñ say sa sa dënn mu ngi feeñ say ween ngi feeñ loolu yëpp yaa ngi ko bàyyi ci biti muy feeñ ba pare nga dox di jàkkaarloo ngelaw li di jàkkaarloo yeneen mbindeef yoo xam ne ñu ngi ci kaw suuf di dox comme yow kooku pour nga am wér di yaram da yomb góor ñi léegi boo gisee lu tax télé bi bëri ñoom ñoo ko teg seen bopp ndax solatuñ la jot solatuñ yëre yu jot am na ngelaw yoo xam ne bu la duggee da lay indil faible bu baax a baax a baax jigéen ñi am na ngelaw yoo xam ne bu leen duggee moo lay indil faru moo lay indil nga bëgg a sëyeeg sa borom kër doo yëg bànneex moo lay indil ngay toog moo lay indil feebar moo lay boo gisee jamono ji léegi soli nii war nañ ko xoolaat wuy jur yi balaa seen njaboot yi di génn ci kër gi ñu xool njaboot gi li ñu sol lan la pour ñu mën a dimbale njaboot gi ndax jigéen bu bëggee jur kilifa góor bu bëggee jur kilifa day sol lu jot doom joo xam ne wala yoona rus naa judd si jigéen joo xam ne bu génnee ci mbedd mi dañ naan kii moo ko jur boo ko juree sax day dee maam daal jigéen joo xam ne doo sol lu jot wala jigéen joo xam ne awraaloo say cër boo génn boo même boo juree doom joo xam ne wala yoona sax doom ju ju dund jërëjëf euh, sëñ Adama Cissé wax ji am na solo ñu fàttali ba léegi rek euh, ñu ngi seen émission diine ak xam-xam ñu dalal ki nga xamante ni moo nekk Serigne Adama Cissé nekk fii si diwaanu Kaarang Kaarang suñ ko waxee nekk na gox bu nga xamante ni mu ngi ci région de Fatick département euh, bu Foundiougne arrondissement Toubacouta nekk fu nga xamante ni moo nekk frontière Sénégal ak Gambie sëñ Adama Cissé xam-xam bu nga xamante ni wax nga fi tey mu nekk xam-xam bu kenn du laajte macha allah.